ñeenti at ba ñu ko ajee woon liggéeykat yi réewu Sénégal amal nañu tey jii ci benn fan ci weeru mee gi seen défilé ni ki nañ ko doon defee bu njëkk ngir màggal rek bëccëg gi ñu jagleel wàllum xëy ci àdduna wërngal këpp dox nañu avenue Faidherbe ba place de l'indépendance ay junni junni doomu aadama bokkoon ci bile défilé. depuis Covid bi am nañu ay ay ay regroupement la ñu pare def défilé ren nag ne nañ def défilé. pour que ñu mën xoolaat encore ak euh, am communier ak sunuy militante ak sunu militant seeni revendication yi gën am solo bokk na si ñuy yokk salaire yi si public bi ak si privé bi fexe tamit ba yombal paj mi liggéeykat yi ba saa ñu ko ittewoo jot ko si anam gi mu waree. façon yi yëpp gis ngeen ko mooy nañ yokk peer gi dund gi dafa cher loyer bi dafa cher euh, nañ respecté droit liggéeykat yi fi ñu liggéey euh, ku liggéey nañ la jox axam nañu respecté SMIC bi nañu mën a faju bu ñu feebaree protection sociale bi dañ ko yaatal secteur informel bi nañ leen gouvernement bi jàppale gunge leen euh, ñi nga xam ne dañu war a am ñu ngi ci informel bëgg nañu am aussi formalisation yooyu yëpp c'est des revendications enseignants yi aussi jàngalekat yi ñu jox leen seen àq ak seen yelleef ñi nga xam ne ñi ak équité so ak équité de traitement dans la fonction publique ñeenti centrale syndicale ñoo défilé tey UNSAS CNTS FC ak CEISA booy xool sax téeméeri liggéeykat yow jël juróom-ñeent fukki ak juróomi si yile central lañu ñu lëkkaloo bu ñu noppee nag si bile défilé secrétaire généraux yi dinañ dem palais présidentiel jébbal njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye seen cahier de doléances